ci pàcc bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi yéen yi eh, li ñu xëyee tey ji ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ku sa yàpp bopp ump fa gël sab kàng kàngamu parti démocratique sénégal ba coordonnateur ba Omar Sarr xëy na ngar daajjoo xët mu njëkk observateur waxtaan wu yàlla fa wàllo wàllo bi séq ak Njaga Njaay bu yéenekaay bi Njaga moo njëkk ne ko candidat parti démocratique sénégal ci présidentielle yi 2017 yi loo ca xam mu ne ko Karim Wade la li may sàkku ci sama frère de parti yi ñu ci mel ne Souleymane Ndéné moo di ñun ñëpp dañoo war ànd na ci ñi ci gën a jàmbaare mooy ki gën parti démocratique Sénégal bu ñu ko sampul keneen ku ñu samp Omar Sarr ne danañu fëgg suñu loxo ci ëkk journaliste observateur bi ne ko waaw dëgg la yow doo candidat waaye am na ñeneen ñu nekk ci parti bi ñoo xam ne am na ñu yéene doon candidat ñu ci mel ne Souleymane Ndéné Ndiaye Habib Sy Aïda Mbodj Modou Diagne Fada wala Serigne Mbacké Ndiaye la ko Omar Sarr tontu moo di ndax loolee yaakaar nga ko bu ñu bëggee parti démocratique Sénégal defi jaloore daal nañu jël parti bi jox ko Karim Wade Modou Diagne Fada mel ne ku naan ko ci la témoigné loolee waxi géej la sax koy tontu yeggaguñu ca ba ñu yegg ci ubbil journal bi yéen a kaay bi nañu moom saa daaru muxti di Modou Diagne Fada ci audience boo xam ne séqoon na ko Abdoulaye Wade la mu ko wax moo di jox ma parti démocratique Sénégal lu ko mooy ma dem sama yoon journal bi nañuy tanak Modou Diagne Fada njiital groupe parlementaire libéral bu waxee loolee Abdoulaye Wade waree su koo caaxaane ndax dégg nañu ne moom Modou Diagne Fada daje na ak Macky Sall te pexey Macky Sall bu jooyee la muy def moo di jël Modou Diagne ba dëgg ne waa Sénégal dañu bëggub defante am jot gi te ñeme ko ndax kàddu yi mu yëkkati woon jëmee ci layub Karim Wade ba naan bu ca génnee noonee dana ko jaaxal yéene kaay bi nañu loolee tax na Alliance Sauvons le Sénégal di kuréel gi nga xam ne Babacar Mbaye Ngaraaf moo ko jiite la ñu nar moo di dem ba ci buntub ambassade bu France amal fa ab doxub ñaxtu Sud Quotidien nañu sans Félix Pagano ak kàddu yooyee mu yëkkati la mu ko jural moo moom maître Madické Niang ak Assane Dioma Ndiaye ku ci nekk ci wax Wade ko ko may ne bu ñu fàtte ne Abdoulaye Wade mooy moo fi doon sàkko ñu atte doom ji États-Unis wala France France ak waa Wadeen seenub diggante seenub jëflante ci ñoom la wal fajëri yeewoo waa kër Alaaji Mbay Njaay asek naa ko ba yam ci libération doo am lu la bi ko cour répression enrichissement illicite mayoon ngir mu génn réew mi yéenekaay bi nañu loolee du mën a nekk ne li daloon bi boo bursi moo ko dal parquet bi moo bañ loolee cré yi mayee ba tax na Alaaji Mbay ko Walfadjri nañu Tahibou Ndiaye it daanaka loolee ko dal moom faaw ab atteem day xaar enquête nañu bu Ndiaye njiital cadastre la woon lu ko dal ci wàllu yoon Karim Wade ko ko teg ma teg loolee foofee te gàddu réew mi quotidien jigéen ni APR yee ci sigi coor ñoo ngay bëgg tas dëkk ba journal bi ñu xaalis bu toll ci juróom-benni téeméeri million yu bawoo ci Moustapha Diop muy ministre microfinance ngir jàppale jigéen ña foofee yéen bi dañu moo nar a féewale xaalis boobee tàbbi na ci loxo yu baax ni bu ñu sukkandikoo Ziguinchor li ñu wax moo di gannaaw ba ñu jëlee FONGIP yàq ko ba mu yàqu yaxeet jël yëf yi def ko mbirum politique di seet nañu ci dajale ay militant ki def loolee di Doudou Ka administrateur FONGIP ànd na ak i nitam ku ci mel ne Ndeye Ndiaye Atlanta mi présidente réseau des femmes pour l'émergence section Ziguinchor ñu bëgg a jël xaalis boobee sànk ko aakimoo ko di ko séddale jigéen ñu ñu safoo président Macky Sall bu sàgganul day xëy rek gis partem bi tàkk baa mu tasaaroo ubbi lu observateur dogal bi mu jël moom président Macky Sall jëm ci ne Thérèse Faye mu jiite COJER di convergence des jeunes républicaine wutu foofee Abdou Mbow yéen a kaay bi nañu dogal boobee bu ca dellul gannaaw caaf dana xam ne ci diwaanu Pikine ndaw yi bokk ci APR ñetti fan yooyu a station ba nekk ca tali bu mag ba ca buntu Pikine li ñuy ñaawlu ñoom ndawi APR yooyee bu weesoo li président Macky Sall ne Thérèse Faye muy jiite ko gère leneen lu bokk ci seen i ñaxtu moo di ñu gën a jox diwaanu Pikine seenub cër ba leneen lu ñuy falaate ci parti bi ñu faale leen ca réew mi quotidien xëyeg ñun ci lu dal Mariama Sarr ministre de la femme keroog 8 mars te kenn yëgu ko yéen bi ñu ca salle unité africaine ga ca Cissé la woote woon ab daje ngir bëggoon yëf ya jigéen ñi ñëw journal bi ñu toog nañu ba ñu daje mi di doore Mariama Sarr ak ñamu àndal gisuñu kenn salle bi ne wëyëng foo sànni mbàtt mu tocc kenn nekk fa picc ñëwul woon soxna si di Mariama Sarr ministre de la femme la mu mujj def moo di delluwaat ci xewet wi ñu naan promo import export mu di wuti ay njaganjaay sol ci ñu ñëw nga fay leen jox leen yére ñu sol nga duggee leen ca salle ba ñuy toog di tàccoo ko yuuxu yéenekaay bi nañu soxna si di Mariama Sarr ci foofee la mujj ngir bañoon gàcce Mamadou Mouhamed euh, Ndiaye ñu lay gërëm di la sant gërëm kon mboolem téléspectateur yi nga xamante ni ñoom la ñu àndaloon na ci xibaaru digg bëccëg gi rédaction bi dig leen daj incha allah 19h30 ci kàllaama Kocc 20 ci kàllaama.